internet bu Télé Sénégal TV daleen ak jàmm ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ñëw ak yéen ci coow li dox ci diggante kii di uh, doon Diego ak Wally Ballago Seck gis ngeen nag boobaak léegi li nga xamante ne nag moo daal di xew ci bile mbir ginnaaw kii di doon Diego ba ñu ko daxee foofee ca 2STV la génn nag doon def benn uh, émission ginnaaw ba muy def émission ba nak ci la daal di wax ni rek kii di uh, Wally Ballago Seck li muy def nag ngistal rek lay def ndax nag balaa moo mën a may it rek mu daal di taxaw ci penc mi ah, doog a maye li indi nag coow loolee moo di nag li nga xamante ne rek daal dina koy defee ca soirée bu mujj boobule ak kii di eh, Assane Ndiaye ndax dafa daal di taxaw nak sur scène daal di battre ay millions yu baree bari ginnaaw loolu nag la kii di ah, Don daal di àddoo ci mille mbir di wax ne nag Wally Seck lépp li nga xamante ne rek mu ngi koy def ah, ci ngistal rek la koy teg du maye mukk ci suuf waaye lépp lu muy def rek da koy daal di teg ci média yi ginnaaw kàddoom yooyu nag coow lu bari daal di eh, juddu ci eh, wax joojule eh, ñi nga xamante ne nag ñooy ay fans Wally sekk daal di dal ci kawam bu baax a baax moom Don Diego le milliardaire saoudien ginnaaw loolu nag ñi nga xamante ne it ñoo fi porte ki nga xamante ni moo di chanteur ba di Wally Balago Seck daal di nañu jógit daal di dal ci kawam ku ci mel ni rek Aïda Saliou di voyante bu mag boobu boobule moom it daal di nay dugg ca coow la ginnaaw ba mu ci àddoo ci benn émission daal di nay fexe nag ba daal di jàkkaarloo ki nga xamante ne moo di euh, Don Diego daal di koy wax nag ay dëggam. Ah, waaye nag kii di eh, Don Diego yombalu ko benn yoon moom nag la mu wax rek moo di sañ naa wax kii di Wally Ballago Seck lu ko neex ndax nag seen diggante la ñoom ñaar ñoom ñaar rek ñoo ko eh, daal di eh, seq ba tax na nag bu fekkoon Wally Seck mu toog sax sañ naa xëcc noppam wax ko li nga xamante ni rek moom la ko war a wax waaye nag opinion boobu la doonul nag opinion boo xamante ne nag sénégalais yi rawatina ñi nga xamante ne ñooy béggee kii di Wally Ballago Seck nangu nañu ko liñ ko xamal rek moo di bu amoon lenn loo xamante ne dafa koy euh, conseiller kii di Waly Ballago li mu waroon def rek moo di daal di koy boo en privé euh, daal di cay nag wax ak moom waaye waru koo indi nag ca penc ma daal di toog nag euh, fa toog ca saalam di wax ni rek kii di Waly balaago sekk ngistal rek lay def te moom nag moo daal di waxit ci gémmiñu boppam ni ko rek moom chaque année Waly sekk daf koy jox li nga xamante ne nag moo di xarub tabaski tama mayoon na ko it ab oto di ko defal teraanga saa su nekk mu mel ni nag moom ci biir wax ji dafay wax ba noppi daal di contredire boppam ndax nag bu waxee ni Wally Ballago Seck daf ko doon defal ay teraanga yoo xamante ne nag moom bu ko waxul woon ci média yi kenn du ko yëg xaru tabaski bi nga xamante ne nag Wally Ballago Seck mu ngi ko koy defal at bu jot ak it di ko ci tegal nag xaalis bu bëree bëri ak wéew yi nga xamante ne nag saa su nekk daf ko koy envoyé te kenn yëgul kon nag loolee doon na loo xamante ne moom bu tooguloon ci réseaux sociaux yi daal di koy révélé kenn du ko xam kon nag wax ji mooy wax ba ci biir daal di waat di boppam ba coow li jógee nag comme ni muy demee rek fii ci Sénégal yenn ci ay journaliste daal di nañuy euh, dëkk ay micro ñi nga xamante ne nag ñoo di ay jegeñaale yi Wally Seck ku ci mel ni nag Ameth Thiou daal di nay àddu ci mili mbir moom nag lam ca wax rek moo di euh, kii di Don Diego ak Wally Ballago Seck xamante nañu bu baax ndax nag bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu fàttalikoo kii nga xamante ni euh, moo di Wally Ballago Seck dafay wéy kii nga xamante ne nag moo di Don Diego saa su nekk te loolu nag doon na lu yàgg du tey kon nag ñoom ñaar xamante bu baax a baax kii nga xamante ne moo di Ameth Thiou jege kii di Wally Seck loolu moom nag loolay rek la daal di wax ci mile mbir waaye nag li nga xamante ne moo ci daal di merloo kii di euh, Don Diego ci wax ji moo di participation bi nga xamante ni kii di Amdy Mignon euh, daal di na koy euh, def ci wax joojule Amdy Mignon nag moom ak kii di Don Diego ñoo bokkoon nekk foofee ca 2S waaye nag ki nga xamante ne moo di Amdy Mignon la mu ca wax rek moo di Ah, kii di ah, Don Diego waxul dëgg ndax nag moom ànd na ak Don Diego ci biir oto kii di Wally Ballago sekk ba ñu àndee ah, ca biir oto ba rek Wally sekk Seck di dina yëkkati xaalis bu bari daal di koy jox ki nga xamante ne moo di Don Diego te boobee nag kenn yëgul moom la Wally Ballago ak ki nga xamante ne moo di Don Diego ak yàlla kenn yëgul kon nag ki nga xamante ni moo di Don Diego bu taxawee di wax ne nag Wally Ballago sekk lépp lu muy def rek ngistal la koy defee waxul dëgg loolee nag daal di nay metti lool ki nga xamante ne moo di doon jéego ba ba mu defaatee euh, émission foofee ca cent 221 daal di nay addu euh, ci mbir moomu le nag di xamle nag kii di Amdy Mignon li mu wax moom it dafay fen na kon nag wax ca mu ngi des ci seen diggante ñoom ñaar ku ci nekk nag di yàq moromam musiba. waaye nag kii di eh, soxna Aida Saliou moom moom desul benn yoon ginnaaw ci li nga xamante ne moo di coowal Wally Ballago sekk ak kii nga xamante ne nag eh, moo di Don Diego ndax nag soxna Aida Saliou ku ko xam rek xam ko ak chanteur bi di Wally Ballago Seck ndax nag daal dina koy daggal bi daal di koy eh, won yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di koy yóbbu foofee ca makkatal mukarama ba tax na nag moom dafa wax ni rek moom mooy yaayu kii di Wally Ballago sekk ba tax na nag lépp loo xamante ne nag daal dina taq ci Wally Ballago sekk wala boog ñu ko cay tudd rek moom dafay jóg daal di koy solal robb avocat daal di taxaw nag jàkkaarloog loolee moom nag ba mu ko doon Diego la mu ko xamal rek moo di la mu wax moom rafetlu ko benn yoon ndax nag kii di Wally Ballago sekk dafa doon koo xamante ne nag dafay yëngu ci social bu baax a baax di def si suuf it loo xamante ne nag kenn du ko yëg nag Wally Ballago Seck dafa doon koo xamante ne nag ku ay waajuram gërëm la rawatina yaayam bii di jaaga daf ko gërëm bu baax a baax Wally sekk la muy def fa mu ko njëkkee rek moo di ca biir famille am doog a génn nag ci biti di defal doomu aadama muy lu baax di defit ci suuf loo xamante ah, kenn du ko yëg moom mii di doon jéego nag li nga xamante ne nag daal dina koy wax it moo di daal dinay jàngee ci mile mbir bu baax a baax moom nag la mu ca jàng rek moo di ah, kii di Wally Ballago Seck doon na nit koo xamante ne rek ku ko laal rek sénégalais yi ah, daal di dal sa kaw ay fansam nag moom amuñu sago ci moom la mu wax rek moo di moom nag tey bu saaga woon Wally Ballago sekk nday kon moom dañu koy daal di rek rey ndax moom li mu gis ci kaawu Wally Ballago Seck bi ba mu taxawee wax ni rek Balago Seck ngistal lay def li daanu ci kawam nag doon na loo xamante ne ëpp na ko doole ndax nag fu ne la ko doomu aadama di woowee di ko saaga di ko wax lu nekk ndax rek kàddu yooyee nga xamante ne nag daal dina koy yëkkati jëmale ko ci euh, chanteur boobule di Wally euh, Balago Seck teg ci it di wax nii rek na ñëpp màndu ci mile mbir ndax nag moom ak Wally Ballago Seck xamante nañu bu baax te nag déggante na moom téléphone ba noppi nag dinañu toog dinañu waxtaan dinañu gisee nag fu kenn fekkeewul jamono ji nag Wally Ballago Seck dafa daal di voyager waaye nag bu ñibbisee rek moom dina def le tout ba daal di toog ak moom daal di koy won yëpp ba ñëpp xam ne rek moom ak Wally Ballago Seck dara toxul seen diggante te Wally Ballago Seck jàppewul coow lii muy dara waaye nag ak opinion sénégalais yi moo di rek moom mii nga xamante ne moo di doon Diego mënoon naa rek woo kii di waali Balago Seck si pet daal di koy wax nag li mu koy wax ca la mu wax ca la mu ci jublu moo di moom di conseiller kii di Waly Balago Seck ngir rek mu daal di def ay investissement en plus it daal di def li nga xamante ne moo di créer ay emploi comme ni nga xamante ne rek noonu la ko euh, papam ja euh, Thione balaago Seck doon defee ndax nag mi ngi doon waaj ab projet CEDEAO bu mag mag boo xamante ne nag euh, daf ci naroon nag nag dajale artistes su africains yi yëpp ngir rek ku ci nekk daal di def sa participation ci mille mbir la mu bëgg rek moo di kii di Wally Ballago sekk teg tànkam fi nga xamante ne rek foofu la papam ja coon balaago sekk tegoon tànkam daal di nag suqali li nga xamante ne it moo di Faramareen musique mu daal di am ab studio bu mag moom loolu dong la jublu woon ci wax joojee nga xamante ne rek daal di na koy wax jëmale ko ci Wally Ballago Seck ay ci mi ngi noonu di leen wax nag beneen yoon lay doon ci yeneen i mbir di leen wax nag de leen wéy di abone tey bés li nga xamante ne nag moo di cloche de notification bi ngir rek lenn ci suñuy programme bañ leen a raw